salaamaaleykum amateur de foot maa ngi leen di ziar yéen ñëpp waaw pour yéen ñi may interpellé boobu ba léegi naan ma Pa doo wax ci Cheikh Niass mi génne ay kàddu jëmale ko ci euh, Sénégal ak ñoom seen gars yi sérieusement nag bëgguma ci woon wax di ko may buzz quoi vraiment nag jamono ji Sénégal ku bëgg am buzz rek fexeel cuq leen wala genre malgré li mu wax man ma dama jàpp ni non moom la concerné quoi vraiment vraiment. waaw mu ngi noonu moom dañ ko doon interviewé di ko laaj euh, mooy loolu ci Sénégal ak France puisque moom Sénégal la juddoo mais France la yaroo waaw Gossas gii la juddoo Sénégal mais moom deux ans la dem France mooy loolu ñu ko doon laaj moom mu ne euh, xam naa ni famille bu demoon football Sénégal dinañ am lu ko neex mais moom France la bëgg a football loolu moom c'est clair et moo ko wax mu ne rêve am mooy football France comme euh, bépp ndaw boo xam ne nekk nga France foofee sa rêve mooy nga football foofee ngir mën a euh, wane sa bopp bu baax a baax et tout genre nee na malgré sax moom Sénégal gi la juddoo waaye ba mu dem France euh, lu bëri France la ko xamee ñoo ko yar jàngal ko football xamal ko lu bëri waaw mu ngi noonee am nga ci plein droit Cheikh Niass France googee mu ngi noonu yaatu na tàmbalang yaatu mën nga fa dem wane sa bopp. waaw mu ngi noonu am nañ ci yow confiance nga dem wane sa bopp fële ca France waaye ñun doonuñu équipe boo xam ne nii mbalit bu jur rek ñu ñu tëmbal ñu ko noonu ñun ku xas ba ne fa ngay football moom te yàlla tax des fa bul delluwaat ñëw naan damaa bëgg a football Sénégal ak ñoom seen ce choix la assumer ce choix ba mu jeex te yàlla tax. s'il vous plaît ñas loolu lañ lay wax man yàlla xam na ne kii mosuma koo seetaan mu football mosuma koo gis mu football nag ma leen waxee dëgg rek malgré jaar na Lille fa lañ ko formé waaw prouvé wul mu dem fële ca Young Boy di fa woyal waaw compte Instagram il a dix mille abonnés vraiment bëgguma woon wax ci dossier mais xam nga yéen moom dama dem ba yéen lu ngeen bëgg rek dama ci dama ciy dox quoi mais sérieusement dama ko doon bàyyi mu jàll nag man maîtriser wu ko woon carrément Cheikh Niass xaw ma woon sax exact nu mu demee noonu mosuma ko seetaan football. kon cela veut dire que xam ngeen ne kooku mën naa ni tojagul ci football mondial mu ngi noone ba pare euh, teg ci euh, moom nee na Sénégal juddoo mais France la bëgg représenté moom loolu la concerné nan ko bàyyi ak France am googee mu woyal xam naa ni yeneen joueurs yu bari war nañ koo mën a jàngal mais déedéet xam nga rek rêve la bëgg a poursuivre rek ñoom seen beneen bi ci topp mooy que ñun ñàkk ñuy joueur waaw ñàkk ñuy joueur ko gis Lamine Camara te moom mi la la gis Lamine Camara gis gis Dion Lopy gis Pape Matar Sarr te ñoom ñu ay xale lañ de gis Iliman Ndiaye ah waxuma la ak ñoom Gana Gueye ak ñoom seen ñoom kii nga dem ci ay Pape ba Diop ñoom ñëpp avenir bi ñu ngi ñëw yow lan ngay wut <laughs> daal daal daal samay abonné yéen dama leen bëgg trop mais xam nga rek du ma mën di delloo ginnaaw seen i seen i suggestion mais bii moom bëgguma ci woon dugg quoi vraiment mu ngi noonu ma leen xaar ci commentaire yi lan ngeen wax jëmm joojee di Cheikh Niass choix am la def nan ko ko respectel c'est ça ba xam nag France dina ko convoqué ou pas ñoom comme ma fi nga ma gis noonu ne ay N'Golo <laughs>